aywa bis ni tey la woon ci atum 2018 Khalifa Sall ci la ñu nangoo euh, euh, euh, mairie bu dakaar ci loxoom loolu nag décret ci lañ ko jaarale gannaaw nag ba ngeen xam ngeen ne mbiram caisse d'avance ak coow la ba mu yóbboo rek mbir mi daal dafa mel ni appel dafa confirmer loolee maanaam ñu daal di koy tëj juróomi ati kaso ba noppi itam gàll ci ndoddam li nga xam ne moom mooy lu mu war a fay mu yam ci juróom ci ay millions Niang euh, euh, ka ko wuutu nag euh, mi ngi ko wuutu ca weer wa ca topp muy non mi ngi ko wuutu ñaar fan ak juróom-ñeent baal ma ci weeru septembre 2018 muy adjointam boobu toppoon ci moom di Soham El Wardini pàttaliku bés bi dañ ci ànd ak ki ne dem waykat bii di Alioune Badara Thiam. fekk baax fii ci Sénégal te nekk ci Amérique ñu gën ko xam ci na fanweeri fan ak benn ci weeru août 2020 mi ngi woon ci Ndakaaru ngir tegub xeer bu njëkk euh, jëm nag ci projet boobu ñu duppee Econ City ñu ne koppar yuñ ci dugal toll na ci euh, juróom-benn milliard ci dollar ñu def ko nag ci dëkk ba ñu naan Mbodiène euh, féete nag ci bëj Saalumu Ndakaaru bëccëg bi ñu jagleel pajum cosaan ñu ngi ko tàmbalee màggal fanweeri fan ak benn ci weeru août 2003 mbootaay gi ngànk wàllug wér gi yaram ci àdduna wërngal këpp nag moo jàpp bëccëg bi Leydi Diana fanweeri fan ak benn ci weeru août 1997 la faatu euh, ca Paris moom ak ki mu doon bëgganteel di dodi Alfayed ci jamono jooju nag moom di Diana mi ngi amoon euh, fanweeri at ak juróom-benn li leen yóbbee accident boobu nag du dara lu dul ñu ne ay photographe yu lëj la lool yu leen doon topp ñu leen doon daw. ñu taxaw tey ci fanweeri fan ak benn ci weeru août 2018 euh, bi ñu jëlee xalifa Khalifa Ababacar Sall ci bopp mairie bu Ndakaaru jaarale ko ci ab décret gannaaw nag bi ñu ko tegee euh, daan kaso juróomi at boole koog nag alama. asamaanuk juróomi million euh, ci suñu koppar mu soxaloon euh, caisse d'avance bu mairie bu ndakaaru euh, ci jamono jooju nag soxam El Wardini moo ko wuutu ci bopp mairie ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre atum 2018 Ibou Diame jege lool Soham El mooy dellusiwaat tey ci dunduk soxam El Wardini jamono yi ñuy wax ak yéen na Soham Wardini moom wax ci moom du jafe mais li mën a xam rek mooy la mu nekkoon laataa mu nekk maire tey la ci gën a delluwaat mooy développement à la base politique de développement ci autonomisation des femmes ak leur émancipation maanaam lu ko ñor la développement wu femmes yi femmes yi mën a demal seen bopp beneen bi ci topp mooy njàngum xale yi njàngum xale yi tamit soxal na ko xëy na foofu mun naa wax ni enseignante un jour enseignante pour toujours su su ma mënee citer idée wu des pionniers ndax idée wu enseignant bi daal xam naa ni soxal na ko trop et que elle est aussi mère pour un jour et mère pour toujours mère nag fii dama yaakaar ni damay naan yaay la ndax euh, njànginu xale yi soxal na ko ba ni ma ko waxee fi mu nekk nii nekkinu xale yi ci biir école yi lay wut lay gëstu ci koom-koomam ci li mu yor ak lu mu wuti ay partenariat pour jàppale école yi ba école yi mucc ay mais fi mu nekk nii am na ambition bu gën a rëy boo xam ne sax peut-être mën na génne Dakar ndax dafa bëgg a jàppale école yi seen problème mu gànnuwaay yi problème mu toilette yi problème yenn salle de yi problème yenn salle de professeur yi sax bokk na ci ay projet yoo xam ne daal xam naa ni sori na ci trop xëy na nag du bëgg moo waxoo ci kaw mais mi ngi koy mi ngi ciy yëngatu moom daal lu mu jàppalee réewam parce que nee na réewam la jàngee. lu mu delluwaat réewum daal fi nekk soxal na ko bu jàppale leen. liggéey laa bëgg liggéey laa laay def leneen intéressé wu ma être proche des populations loolu laa bëgg je suis dans le mouvement des femmes depuis depuis je travaille avec les femmes maa ngi liggéey ak jigéen ñi maa ngi uti ay financement maa ngi leen di jàppale ci loolu laa bëgg loolu laa nekk mairie Dakar su ma sa dama xam ne comme ni ma leen ko waxee mooy comme sama entrée en soxna Soham El Wardini moom moo eggale woon mandat xalifa boobu euh, ginnaaw bi nu ko révoqué ni ñu ko waxee foqati nanguwul bokk mairie bi euh, ci loxoom malheureusement euh, bëggoon na beneen mandat demoon ci bañeeru bunt bi su ma juumulee Chérif mais malheureusement pour elle Barthélémy Diaz moom moo jël mairie bi. Barthélémy Diaz parce que elle est entrée quand même dans l'histoire première femme maire. de la ville de Dakar quand même. capitale du Sénégal def liggéey bu am solo. Mhm. en toute diggante Dakar ak l'état central boo xamante ni ak Macky Sall ah, et elle s'est battue ah, pour que Macky euh, kii Khalifa Sall mi ñu mën koo sax féexal. Mm-hmm. doon daje mm-hmm. ci wàllu investiture elle parce que gis nga ñoom ñi nga xamante ñooy waa taxaw Dakar ak Yewwi Askan bi nga xamante ils ont préféré. Mm-hmm. kii di Barthélémy Dias ci la quand dem fa li nga xamante mooy union citoyenne bunt bi ànd ak ñoom elle n'a pas été élue maintenant bu ñëwaatee ci révocation Khalifa Sall aussi comme ni waxee mbiram caisse d'avance beeg lañ ko doon tuumaal ci njuuj njaaj xaalis bi nga xamante moom lañ doon tibbi foofu mm-hmm. cour d'appel bi nga xamante ni dem bi nga ko dembkaa ñi mi mm-hmm. bi nga xamante ni quand même euh, bi mujj njëkkoon na mm-hmm. kon Macky Sall ci di génn décret bi wane ni kon dañ ko révoqué bi nga xamante tamit ministre bi fi nekkoon jiite collectivité locale yi euh, daal di jël boobee dogal donc Macky Sall sax dafa waroon voyage

assurer l'intérim officialisé gu ñu woon peut-être le fait que moom mooy jël fonction fonction maire bi euh, mais déjà defoon na ci ay euh, ay jéego yu euh, yu yu ama am solo donc c'est conformément à à ce que la loi préconise en tout cas mooy que tey en cas de d'absence prolongée wala décès wala révocation mm. naturellement adjoint maire ou bépp mairie en tout cas moom mooy moom mooy jël le relais donc noonu lañ ko noonu lañ ko daal di daal di defee voilà exactement c'est cela donc euh, ministère gouvernance territoriale moom euh, ci projet euh, révocation boobu fàttali ne ne que condamnation Khalifa Sall da koy privé li nga xamante ne moom mooy capacité juridique ak autorité morale nécessaire exercice de ses fonctions mm-hmm. ils n'ont fait qu'appliquer la loi même si après il y a eu l'un de ses avocats mu di maître Seydou Diagne mm-hmm. mi nga xamante ne dafa fàttali que ñoom dañoo defoon un appel pourvoi en cassation c'était illégal pour que ñu ñu li nga xamante ne moom mooy décision révocation boobu toujours en est-il que daal euh, ça nous a permis de découvrir quand même une femme à la tête de la mairie de Dakar qui a été une première euh, mm-hmm. comme niñ ko niñ ko waxee mm-hmm. euh, bu ama am même si malheureusement mm-hmm. elle n'a pas pu être réélue à la tête de cette de cette mairie là donc on lui souhaite excellente continuation surtout dans le combat destiné aux, femmes dans ce pays. Elle est entrée dans l'histoire, El Hadj Malick Thiandoum waay waay waay vraiment elle est rentrée dans l'histoire mhm. euh, mu nekk également jigéen ju nga xam ne euh, li ñu ko mën a ràññeel mooy d'abord dalam mhm. ak euh, esprit d'ouverture am mhm. ak compétence am également quoi mais nag li nga xam ne moom lañu ñu gën a jàpp ci xalifa salle déjà mooy un long feuilleton politico-judiciaire parce que ces déboires ont commencé en 2017 bi mu bi nga xamee ni bëri na ay divergence entre moom et le pouvoir central ci ay lu bëri lu nga xam ni amoon na yéenewu def ko ci Ndakaaru mm. ak i tamit bi nga xamee ni commencé na euh, wax ne bëgg na euh, briguer au suffrage euh, universel pour la présidence de la République mm. donc à partir de de ba ci la commencé mm-hmm. am feuilleton bu métti métti mu nekk nag passage bu métti ci la vie politique de mhm. Khalifa Sall mhm. parce que ku nekk xam na ni euh, caisse d'avance bi coow li ci amoon bëri na mhm. ndax am na ñu ko fi jiitu woon nekk maire ni mu doxale lañ daan doxale te kenn mosu leen inquiété pourquoi Khalifa Sall loolu moo waroon ñu bëri jàppoon ni c'était un un un combat plutôt politique que autre chose mais de toutes les manières moo di ni ces avocats se sont battus jusqu'à la dernière énergie parce que dem nañu ba dugal lu ñu tuddee rabat d'arrêt maanaam procédure yëpp yu waroon nañ ko dem pour euh, ñu bàyyi seen client def nañu ko ba egg ci rabat d'arrêt introduit par sa défense mais cour suprême daf ko daf ko rejeté woon foofu nag moo nekkoon la fin du combat judiciaire ba nii ñu ko defalee grâce présidentielle maintenant nit ñi li nga xam ne moom la ñuy xaar mooy ñu ñu ñu ñu ñu ñu amnistie pour mu mën a sampaat ndëndam mais lu ci munti am mooy feuilleton la bu metti ñëpp a ngi fàttaliku ba muy def conférence de presse ba ci yàgg mu yëyu jooy pax ma ñu ko gasal. daf ci doon dugg. tout à fait merci beaucoup. Bamba Fall ñamoon na ci kaso bi. Mhm. Euh, ci combat bu metti boobu. on se rappelle cette euh, mhm. histoire Chérif. je parle de Barthélémy Diaz aussi moom it procès bi xam dañ ko renvoyé le 21 septembre bii la. Mhm. en cas de condamnation est-ce que il ne risque pas de. quand même d'être victime de cette même situation. on verra day perdre say droits civiques yëpp maanaam fi mu nekk euh, mhm. ci lépp lu nga xam ne ay wat la ci réew mu Sénégal. très bien euh, dinañ ci xam lu ñu leer fii ak ay jamono en tout cas ñu ngi leen di jëfal set jot na ba tegal fukki simili ak euh, juróom-ñett ñu ñëw ci xibaar yi ci gàttal ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw.